ba tey nee nañu bu dee fu mel ni réew mi nga xam ne fu mel ne ceeb lañ fi ëpp dundee xëy na dugub des na ko fi jëfandikoo waaye daa mel ne ceeb bi lañ ko fi ceeb daa mel ne kon nga def ko mooy gën a wóor te bañ a def dugub su fekkee tëlee ceeb nag moom dana baax waaye daal mel na ne su fekkee ni mën nga yaar yëpp moom ceeb nga war a def ndax mel na ne ceeb moo ëpp ci dunde gi te it moo ëpp qualité maanaam te moo ëpp daraja mu ne nag li tuxu nii ngir mu doylu loo moo muurum koor wala li tuxu nii ngir nga doylu loo yow may joxe xorran gor musliman suñu ab jullit fi yow mi ca bis ba dafa wax ni muurum koor li tax ñu bëgg ñu joxe ko ma li tax yonante bi santaane ko mooy dañoo bëgg buñ ko ko loru ki du jar bis boobee muy jóg di wëreelu ji di yalwaan ba dara maanaam muurum koor mi ngi koy jox dana doy dana ko doy ci bis boobee mu daal di bokk ak jullit ñi bisub mbégte bi muy bisub korité bi du jóg di wëndeelu di yalwaan di wut lu am foofu nag fi la jeexale lu aju ci mbirum asaka wax na asaka wax murum koor mu jàll si ci beneen ponk ci lislaam te mooy woor ci boppam kitaabu siyaami lii mooy téereb koor siyaamu shahri ramadaana woor weeru ramadaan wajaba war na dafa wax ne weeru koor yu muy ramadaan moom woor ko farata la ponk la ci lislaam ca kam war saw mun koor nag nu di ba soppeef na ko wala nga ne fii rajab bi nekk na ci rajab shahbaan ak shahbaan saw mun koor nu di ba goog soppeef na ko dafa wax ne yaari weer yi muy baraxlu muy shahbaan rajab muy ndeyu koor yooyu yaar sopp nañ boo ko mënee nga woor lépp lépp lépp nga dog benn fan bu fekkee ne nag naroo ko def lépp lépp rajab sopp nañ bis ba ci nekk ñaar fukki ñaar ñu koy wooyee kasu rajab bu dee baraxlu itam bu fekkee doo def lépp daañu sopp bis ba ci nekk fukkeel ak juróom muy bis ba mu xam waaw kartis yi xijjatin niki juróom-ñeente niki juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski kartis yi xijjatin weeru tabaski dañoo sopp bu teroo rek nga tàmbalee woor bañ ne suba la fukkeel muy bisub tabaski bi muy bañ fukkeel nga daal nga door a bàyyi waaye lañ ci gën a taamu ci nekk juróom-ñetteel ñu koy tudde yow mu tarwiyati ak bis ba nekk juróom-ñeenteel ñu koy tudde yow mu xarafata bisub xarafa bisub xarafa boobu nag moom dañ koo sopp lool lool moo tax mu naa wa axraara wante naag al axiru aji mujj ja maanaam mooy bisu arafa mooy buñ ne suba la tabaski bis boobu nag doo seet bis ba ko waa Màkka ñoom jàpp dangay seet rek fa nga nekk ba weer wa teroo ba mu doon juróom-ñeenteel rek juróom-ñeenteel boobee mooy bisu arafa ci yow. loolu ñu fàttalee ne bu fekkee da ngaa aj moom bu fekkee da ngay aj Màkka duñu sopp ci yow nga woor bisu arafa boobu ndax dañuy bañ nga néew doole ba na nga war a taxawee ci bis ba ca foofa ci aj ga doo ko mën. kadaaniki ni al muharramu weer it weer itam xarit moo njëkk ci atum lislaam moom sopp nañu lépp lépp nga woor ko. moom it wa axraante nag alxaashiru aju fukkeel ja aju fukkeel ja maanaam bu fekkee doo woor weer wépp itam ci gën a sopp kon mooy kon na nga woor bisu ak sax bisub juróom-ñeenteel ba boo ko ci mënee boole moo gën ak bisub ñett kon jàppal ne weeru tam xarit yéen ci gën a fonk ba ci gën a fonk bañ ci gën a fonk dëgg moom mooy fukkeel ba waaye juróom-ñeenteel ba it noonu la ñetteel ba itam noonu la wa yasbutu bi ru'yatil hilaali ci gisub terute la aw bi talaasiina wala ci fanweer xubay leen ci ak jëkk fii kamaalin ci ak Ramadan teru na ba waris naa woor mooy buñ ko gisee gis ki nag mën naa am mbooloo gis ko mu kenn lantali wut wala ñaar ñu maanu gis ko loolu ba tey bu amee rek koor gi daal di sax bu fekkee ne gisuñu ko waaye weeru barax kon su boobaa bis ba ca topp ñu daal di xam ne kon ci Ramadan la bokk waaye amoon ci ñaar fukki yaa juróom-ñeent ci barax luy dutee ñu xam ne bis ba ca topp moom Ramadan la fardu siyaami faratoor nag niyetu mooy yéene bi lay liggéey ca guddeem ga ku ne ci faratay koor nga yéene yéene ci fas yéene woor te nga def ko ci guddi ga guddi gi mooy fi jant bi soxe balaa fajara fenk bu fajar xasee fenk te yéene woowoon yéene ci doomu jooju rek doo mën a woor bu la wóoroon ni bis boobu ci lay ay jàpp rek bañ a lekk bañ a naan te fay bis booba ndax ñàkk nga ñàkkoon a yéene ci guddi ga léegi guddi moo kon ba yéene kon boo ko xamee ci bëccëg bi noonu ngay def watar ko wat ak bàyyi laal chur bi ak bàyyi ak naanam wa ak lixi akuk lekkam maanaam gannaaw boo yéenee koor gi dangay bàyyi lépp loo xam ne luy dog koor gi la yooyu nag moom la tàmbalee wàññi laal gi mu ko wax mooy jote góor ak jigéen kooku bu ko defee koor gi yàqu na bàyyi naan ak lekk itam bu naanee wala koor gi yàqu wala xëy ak bàyyi wàccu maanaam bu wàccu wàccu moo xam ne moo ko tey nga ko looju kon moom day yàqu bu dee wàcc moo xam ne teyu ko nag te wanaatu ci dara moom kon du yàqu maa isaali ànd ak àggale dara lil maa idi ba ca bàq ga min udunin bàyyi ko ci nopp aw aynin wala bët aw anfin wala bakkan xad warada bopp rot na waaw na moytoo àggale dara ca bàq ga lu ruy bu dee lu ruy moom fu mën di jaare moo xam ci nopp bi la moo xam ci bët la moo xam ci bakkan bi la moom mu jaar ci gémmiñ gi ñooyee moom bu fekkee dafa nekk lu ruy mel ne ndox wala café wala yu mel noonu nga xam dafa ruy nekkul lu wow kooku moom nee na ngay ci boli gi rek jëru ngay sart bàq ga bu àggee ci boli boli gi rek ñu jàpp ne koroog na bu fekkee dafa nekk lu wow ko waaw lu mel ne ab dërëm wala lu mel ne kooku moom nee nañ bu fekkee dafa jaare ci gémmiñ gi mbaa ci bakkan bi ba la koor gi door a dog waaye su agsi woon ba ci waxtandi moom lu wow koog loolee kon ba tey koor gi du ko tax a dog mu ne nag waxta tuluuxi ci waxtu fenkuk ilal xuroo bi ba ca soga maanaam nee na waxtu koor gi moom mooy la tàmbalee fa fenke ba jant bi so bu jant bi xasee so sa diggante ak fajar di fenkaat moom lépp lu daganoon ba tey dagan na ci yow mën nga koo def tàmbalee rek fi fajar fenke ba jant bi so wal xaqlu xel nag fi awwalihi ci ak njëlbeenam charte wujoo bi sartu war la mu ne fajar nga xam ne ci la koor gi tàmbali nga ànd ak sa sago waaye bu fekkee ne àndoo ak sa sago kon koor gi du la war bu fekkee nag léegi ci jamonoy fajar yeew woon na ba yéene gannaaw ba nag mu xam waaye lu mu xam moom du lépp bis bi du la ëpp ca bis ba xanaa xaaju bis ba rek mbaa lu matul xaaj ba sax moom la xam te fekk na moom yeew woon na ci njëlbeenu faj ba yéene yéene wér wér waaw su boobaa kon koor googu doy na waaye nag bu fekkee lépp bis ba la xam mbaa la ca ëpp moom la xam mbaa farutoon yeewu sax ci jamonoy fajar ba ànd yéene ju wér su boobaa kon bis boobu doonte lekkut naanut du tax koor ga doy muy faaw da koy wooraat wala yàq dina fay lu aji ñàkk xel ma moo tax loolu lay wax maanaam koo xam ne antoon ak sago ci jamonoy fajar ga kon bis boobu na ko fay wala xay bu mën a tere na saw man koor maanaam li ñuy wax baaxut jigéen koy wax mbërëg mbaa reegal su ko ji su ko jigéen gisee du sañ a woor koor ga araam na ci moom du ko sañ a def te bu ko defee itam du wér wa taqlid dana fay nag al farada kooru farata ga inir dafa xandeem yëkkatikoo na bi ci moom dina bu fekkee koor ga day kooruk farata nag ba tey jigéen cee woor maanaam mbërëg mi bu fekkee ne koor ga koor te jigéen ji wóorul ngir deret jooju ñu wax dafa tudd rek mbërëg yam ci waaye dereti wasin ba tey ci la dereti wasin mooy deret joo xam dooma ko waral moom it bu ko jigéen amee du sañ a woor bu wooree itam du baax nag ndegam koor ga kooruk farata la dana ko war a fay wa yukrahu def na si àllam su laal wa fikrun ak xalaat sali boo xam ne mucc na ñoom ñaar dëban ci aada wala ci baax minal madi ci madi yu leena xam ne woo daa woor mu wóor ko ne nag bu fekkee dafa laalante wala muy xalaat ka nga xam ne mu lay seel du tax dara moom waaw su boobaa laal laalante kooko mbaa xalaat ko dañ ko sib rek yem ci wa illaa ndeem xamu ci lu ko wóor nag xaruma kon mu araam bu fekkee ne nag wóoru ko ba xam bu laalanteeg muy séeri wala mu di ko xam ne du génn kon day araam su fekkee dëgër na bopp ba def ko nag bu fekkee mesure moo génn kon fay rek moo cay war bu fekkee ne nag maniyu moo génn nag day fay ba noppi boole ci kafaara wakarihoo sib nañu dawxa ka xidrin mos lu mel ni ki cin maanaam woor ba noppi di mos lu mel togg ba xam saf na xorom wala déet wala ngay tàngal café wala attaaya di mos ba xam saf na suukaram safut loolu sib nañ ko ndax dañuy bañ bu rëccee jàll sa koor day dokk bébante mooy wax ju boo wooree ko wóor dañoo sopp nga téye soo làmmiñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba wax wax joo xam ne nii amul tuyaaba xëy na sax ayut ndax wax ju dagan la waaye rek amul tuyaaba boo wooree dañoo sib ngay wax wax ju mel noonu ne buñ ne sax nangam araamoon na nga wax ko mbaa siboon nañ ko boo wooree dañ koy gën a araamal gën koo sib ndax màggaayu koor ga xaalibu xay in aji noti wàccu wa dubaabin ak weñ moo tafarul lu ñu jéggale la ñena boo wooree nag wàccu wàccu moo xam ne tëyoo ko dafa laa rëcc rek ni ki nga siburu jekki-jekki wàccu kooku jéggale nañ ko ba tey bu fekkee jekki-jekki sadax la ba tey kooku ba tey jéggale nañ ko wàcc bi nag bu fekkoon ne yaa ko tey nga xam ne ngaa luuju waaw nga xam ne yaa ko génne waaw su boobaa kon faaw koor ga day xubaaru saanihin ak pëndub aji liggéey wa turxin ak pëndub ay yoon booy liggéey ngay bokk ci ñi tibb suuf wala ngay liggéey ci mbirum maçon wala yu demee noonu wala nekk ngay liggéey ci ciment day am pënd wala sax nga aw ci yoon wi rek pënd bi lay sol yooyu yëpp jégal nañ ko ci boo wooree. kon ak soccu maanaam soccu ba tey boo wooree sañ nga ko waaye nag def ko socc boobu moo gën a wóor moo tax mu teg ci wasi wasiwaakun akub socc yaa bi sun buy aji wo- socc boobu yaa bi sun ji moo ci gën ndax boo ko defee socc bu tooy boo muccoo ndox mu jël koor ga day dog kon na nga ko def socc bu wow isbaaxu janaaba xëyee janaaba gazaaka nag janaaba ci guddi gi te sanguwoo ko ba fajar fenk te fekk booba mu jamonoy koor bu yàq dara ci jëmmi xanaa rek boo yeexee sangu ba julli farata ga raw la rek loola ci ngay amee bàkkaar waaye jëmmi cangaay li moom boo ko defutoon te woori du tee koor gi moom wér kon nag nii yetun jën yi dana doy li maa ñeel koor ga nga xam ne loom yeeji bu dana war dafa wax ne nag gépp koor goo xam ne de des koo war a tegale ni ki weeru ramadaan wala lu mel ne yeneen kafaar ak zihaar xam ne des koo war a tegale waaw lu mooy yéene jën yéene ci guddi gu njëkk rek doy na du aajowoo nga yeesal yéene ji illaa in nafaahu ren dem dàq na ko maani xuuxu aji tereem dem ba yàgg nag am lu baale beneen ndog ndog la bu wóoru woon kon gannaaw booy tàmbaliwaat da ngay daal tàmbali di ba soppeef na temps ji lum gaawe li fitrin ñeel dog rafaxahu gu yëkkati na koor ga bu la wóorin jant bi sona nga daal di gaaw dog dog boobu li ci gën mooy ngay male ko ci tàndarma wala ndox rek daal di gaaw julli timis bala nga faa nekk di naan kafe ka yëfi aar yi wala fii ba julli gi di la raw timis waxtu wa daa gàtt mën ngaa njëkk a julli ba noppi rek ndox boo julli ba noppi door a dem ci yëfi aada yi mën a toog yaatu naan kafe bu yaatoo yaatoo yi demee noonu kazaaka naka noonu ta xiiru suñ yeexi xadd xaw topp na ko xadd dañ konk lool nga def ko ba noppi yeexee ko nga xam ne si digganteeg nodd fajar gi day jegee maanaam diggante doy na ci loolu lañ ci gën a taam waaye lu tee nag bu genn bu xaaju bu du jotee rek waxtu xadd moom dugg na waaye nga nga xoolaat ma la waxoon ne la gépp koor bu ñu war a susali sar boo ko seene ci njëlbeen nga rek du aajo nga yeesali yéene ji guddi gu ne loolu nag lam la waxoon ne la lu may da ngaa dem a dem ba tegaleen ni ki nga am sibru wala génn wéra ji ba tax wóoroo kon day aajo guddi gu ne da nga cey dolli ne gannaaw ba doonte sax jëloo ngànt la nga xam ne ngaa wóor rek man sa bakkan daal di wóor rek du tee doon nga sañ-sañu ba war guddi gu ne ñàkk nga ñàkk jël sañ-sañ ba du tee guddi gu ne nga war a yeesal yéene ja kooruk farata xabaaxu mu fay ko loolu takk takk takk takk la bu yaatoo yaatu maanaam gépp koor goo xam ne farata la soo ko dogee moo xam yaa ko tey moo xam téyoo ko doon dañ laa forcé moom war la ndax kooruk farata faaw des ko war a fa wala yesit na dolli nag kafaratan kafaara fi ramadaan ci ramadaan im tey na li ëkk li famin ñeel lettre bi famin wala naanu gimiñ aw lil mani ñeel tey génne maniyu wala bi fikrin ab xalaat la dina bu dee kooru ramadaan boole ci nag nga tey ko tey ko nga tey ko daal di koy dog moo xam da ngaa lekk moo xam da ngaa naan moo xam da ngaa génne man yi doon ci sax ni nga du joteeg sowukaay sowukaay xanaa xalaat bu yàgg la bu tax man yi mu génn wala laajte ci yaram su boobaa neen doo yem ci fay dong def kafaara kafaara alamaan la boo xam ne dañuy wax léegi dañ koy defee aw li raf vima wala ngir fëgg la nga xam ne fëgg mooy bàyyi fëgg xam ne bu nee bu nee foon na ca koor ga fëgg rafdu mooy bàyyi daa wax ne yéene ji moom ci xam nga ne ci la koor gi samp maanaam mooy téye koor yi moo ko lekk ba ci biir nag wëlbatiku ne wàcc naa yéene ji wax wax na ko ci làmmiñam moo xam moo xam danay maa yéene woon yéeneetuma baa boog ci xolam moom jàppan na koor waaye léegi wàcc na koor gi jàppan waaw kooku doonte lekk yéene ji ci xolam rek moom loolu nag mën naa am ci bëccëg bi la wàcc yéene ji moo xam ci guddi gi itam la ko wàcc ndax bu fekkee yéene woon na ci guddi gi gannaaw ba mu wàcc ko te yeesalaatu ba far fajar fenk ba tey loolu benn la ñoo bokk àtte fas yéene ba ba noppi moo xam ci bëccëg la moo bu fekkee amul fu mu ko sës fu wóor a wóor moo tax mu boole ci bilaata aw wulin xaribin su boobaa day fay ba noppi kafaara boole ci waaye bu fekkee da ko sës ci sësuwaay boo xam ne nag xel gant la su boobaa kon fay rek ko ci war waaye du ci war a kafaara bokk na ca nag muy tukki tukki boo xam ne tax kon sañ naa dog ba loolu tax koo dog loolu xam nga da ko sës ci defam moom day tukki sañ naa bañ a woor mu daal di wat ci yéene ji ngir loolu lu mel noonu wala nga xam ne daa amee woon janaaba te léegi sanguwu ko ba gannaaw fajar mu daal jort ne nag moom bu sanguwul ba gannaaw fajar rek say bu mu wacc ci yéeneem bu wooree tey itam du baax te awulun xarib la lu mel noonu fay rek ko ci war waaye fay rek moo ko cay war waaye alamaan du ko ca war lu tax mu ne bila ta awulin ci lu dul ak tawil dañ koy aji jege maanaam bu fekkee dafa wàcc nag ko daal ci xolam yéene nag moom foo ko fekk ci guddi képp lañ koy fas mu nees koo fas ci bëccëg naa bu mu ko fasee bu fekkee wëlbati ko ci ko xel na nga gu yoon nangu ak su boobaa kon la ko kafaara boobu di war bokk na ci taawul yi nga xam ne nag yoon nanguwu ko mooy ne teg na bëtam ci terotali maanaam te teg na bëtam ci weeru feeñ gis naa ne weeru feeñ taxul ñu nangu ko moom mu daal di bañ a woor ndax ndegam nee na wax naa ko te nanguñ ko rek man duma ci warante loolu dañuy jàpp ne bu dee taawul itam taawul gus alamaan war ko loolu lu mel ne am na jàngoro joo xam ne daana ko dikkal ci bis sàngam mu ne nag tey kon du ma woor ci la ma daan dikkal ak kooku doonte dikkal na ko ca boole ca it du tee bu fa ba tey mën nga cee boole jigéen joo xam ne daa wax ne man daal tey du ma woor ndax bis ne tey jii ci la daa gis baax ba rek maanaam reegal kooku bu ko loola tee woor bu ko loola teexee woor doon na mu ko jàppe woon noonu la amee maanaam gis na deret ja boole ca du tee mu fa ko ndax loolu tey lañ ko jàppee nag bu fekkee na mu ko yaakaare woon ne tey la koy dikkal faru ko dikkal bu baaxu def na daganal dog li bur bi ngir lor nee nag bu fekkee dafa woor waaye am na war joo xam bu wooree dana metti lool kon mën naa bàyyi koor ga te fay rek de bu fekkee ne sax day war joo xam ne bu far mbaa dana ci am ab cëram bu mënatul la mënoon su bopp ndax kenn du xaru kenn du rey sa bopp aw safari xësrin wala tukki yëpp doxul wàññi ay li ma ci namm rek mooy mu baaxul lu ñu daganal la wala nga ne ay li ma ci namm mu baaxin tukki bu diguñ daganal daa bëgg wax bu fekkee ne tukki tukki boo xam ne mat na doxul wàññi doxul wàññi waaye moom daal soixante dix nañ ko ba tàyyi waaw bu fekkee tukki ba muy tukki mat na ko teyit ba muy tàmbali tukki ba te fenkagut teyit naka jekk bañ a woor rek la yéene woon naka jekk yéene wutoon woor benn yoon waaw su bañ a woor te du wàññi dara waaye bu fekkee ne xës na jàpp woor ba fajar fenk kon faa mu demee ci yéene ci koor ga rek bu demee ba ci am gànt lu mënta jàll ci ndax metti tukki bi moom nar caa gaañu su boobaa nag kon mu mën a dog ndax gànt la bu dee tukki boo xam ne doxu wàññi itam faaw daa war a woor rek waxam du ko tey donga nag fi naf li ci naafi la duuna bu mu xaram lu ñu araamal la maanaam bu fekkee dafa koor koor goo xam ne waru ko woon moom moo ko waaw kon bu saati duggoon ci sama coobare day jekki-jekki dog ko lu may dafa am lor moom léegi mu jékki-jékki wala bu tawat kon mën naa dog te bu aajowoo mu di ko fay. waaye bu waree kooram naafila ndax bu jékki-jékki dog ko te amu ci ngaan ko fay ndax waru ko waaye ba mu ci xasee dugg daa soppi ku lu war. ba tax mu daaneele ko wala yaqdi na fay koor googee na fay koor ga la fil xayri waxuma ci leneen wala nga ne laa fil xayri waxuma ci lu dul laa bëgg a wax ne li ma waxoon léegi su fekkee daa koo xam du farata mu tay ko nag ba noppi amul lor daal di koy. dog kon leena laafil xëy na lim ci jublu mooy bu fekkoon ne tey dogam dog koor naafila googee fàtte rek a tax mbaa moo ko tey sax waaye loro moo ko waral nit ki dafa sibru ayu demee noonu waaw su boobaa fay du ko ca war waaw waaye yooyu jamono dara du ko waaye nag foofu dal maanaam bu fekkee ne koor ngàtt nga gi maanaam koor naafila gi ba mu ko dogee moo ko tey te amul ngànt kon saye boo mu wéy lekk ak naan ndax ndegam da koy fay rek moom saye boo mu lekk waaye bu fekkee dafa juub rek maanaam daal tëyu ko donc mu dog kooru ngàtt nga googee tëyu ko dafa juubu rek bañ wax ko ne ko yow léegi dara lu ci war waaw su boobaa nag kon day jàpp koor ga maanaam du wéyale di lekk ak naan day soob yàlla des na ko ci fay tuyaa ba itam waral na nga kafaara bi sow mi chahar yaari weer wala an ci ak toftale aw xit ximan lookin wala goreel ku ni moom ku xalaakut melawoona bi islaam yi ci lislaam wax ne amaan waree ci koor am na yetti xeet yoo xam ne mu ci neex def benn bi mooy war yaay susaloo ne bu dee benn fan bu mu dog bu ne rek te war caa def alamaan te di ko fayee ci tey def alamaan ba ci koor kon benn fan bu ne yaari weer la koy defal yu susaloo yaari weer yu mu war yu susaloo lay def ngir muy benn fan nga xam ne bu fekkee da ci amee woon ñaari fan yu mu war a fay ba noppi defal leen alamaan te di ko defee ci koor kon yeenti weer lay def yee day tegaloo yaari yee tegaloo bu ko neexee nag digte bu mu waree yaaree ak ba mu waraat yaaree ci des moom mu noppaloo wa ba tey bu ko neexee boreelub jaam jamono yi jaam amee moom su ko defee mu daal di nekk mu des benn boo xam ne moo ci gën ci ñi ko waxee mooy fab baloo gën na itxaama sitti na lool juróom benn fukk faqiran ci aji ñàkk ñeneen ñi am miskin minal xaw si ci dund ma al kathiri bay aji bari maanaam alamaan bi gën mooy mu leel ay miskin yu mat juróom benn fukk waaw juróom benn fukk dañu tax ko bari ndax mën bi lañu wax dama ko jàppi ak liibar ci benn tole bi kitaabul xajji lii mooy téereeb aj daa bëgg a wax ne bunt bi la jagleel aj male néewaana téere yu ko leerale noona alxajju aj fardun farata la maratan wenn yoon fil umri ca dund ga aj màkka farata la laam ci koo xam ne mën nga ko koo xam ne mënu ko nag kenn san wax nag farataam jeex na da di ajwaat nag ngir yàlla ndax baam arkaanuhu ay ponkam ndem bàyyeef na leen lam tuju bar defu leen mën a jàng aj am na ay ponk yoo xam ne ñoo ñàkk benn bu ca manqué rek day mel ne mu amut yi muy bëgg a wax ihraamu armal ayu ak dox safa ak marwa wuquufu xarafata ak taxaw xarafa wa tawaafu wër kaaba ga rab armal mooy yéene dogu ci def aj gi léegi defu ko rek moom defagul dara kooku mënta ñàkk dox safa ak marwa daañu ko leeral mënta ñàkk fa moom ku doy waar la jamono juñ ko war a taxawee joo xam ne bu la xasee raw rek ci nga ñu guddi fukkeel ga bu ñu yendoo juróom-ñeent fukkeel ba jant ba soxee balaa fajar fenk war nga faa taxaw arafa bu fajar fenkee taxawu arafa rek aj raw na la ba déwén nga fay ci ko radi fa topp na ko ji dafa wër goo xam ne dañ koy ëpp def ci bisu tabaski bi ñu koy woowee tawaaful ifaada kooku farata la am na yenn wër na yu bokk te moom nag waaye bii moom farata la daañu ko leeral buñ ci àgg wal waajibaatu warteef ya xadd jubirat jàngeef na leen bidamin ci deret aj daa am ay warigar yoo xam ne soo leen bàyyee tute aj gi baax waaye dañ lay alamaan nga tuur deret tuur deret gi nag mooy benn muy gëléem mbaa aw nag mbaa ab gàtt mën naa nekk xar mbaa bay lenn la cay doon mooy doon alamaan ba min ha bari nag tawaafu mën warug ka nga xam ne xadima dikk na wër bi nga xam ne soo ñëwee màkka moom ngay njëkk a def ñu koy tawaaful xudóom bu fekkee ne moom da ngaa armale ci miixa la ñëw màkka nga xam ne sa digganteeg taxaw arafa xatut wër bi ñuy wax wërub nuyoo nga xam ne bu fekkee defoo ko rek daal di waram alamaan wa wasluhu akuk jokkam di samar wa tayit boo ñëwee noonu amu yaatu boo defee tawaaful xuddoo ba noppi da nga ciy sësale dox safa ak marwa dox safa ak marwa moom foo ko fekk daa war a sës ci ak wër kaaba te wër ga nekk war loola mënu caa ñàkk kon nag soo amalee ci miixa ñëw màkka amu yaatu tawaaful xuddoom teg ca dox safa ak marwa day bàyyi ñaari wari gar alaman dal lay war itam bu fekkee dangaa yéex ak sim jege moo la tee def dawaaf moo la tee def tawaaful xuddoom alamaan du la war jàppal ne dox nga safa ak marwa nga sësale ko ci warub nuyoo boobee loo wër képp warub nuyoo bi da nga am alamaan bu fekkee ne itam wëree warub nuyoo ba dox nga safa ak marwa waaye da nga ko caa sësaliwut nga xam ne si soree sësaliwoo ko ca da ngaa toog lu yàgg door a dem def dox safa ak marwa ba ba tey alamaan bi war la ma ak booy dox safa ak marwa yépp da ngay dox ak sa tànk kenn bañ laa yenu nga bañ a war suñ la yenoo rek mbaa nga war rek te fekk nga mën a ndox rek nga daal di am alamaan war ak xataat tawaafi ak ñaari rakk yi wër ga intaxat tama ndeem war na su fekkee ne benn wi tawaaful xudduum ñaari wër yi bu mu ca doon wër bu war la gannaaw boo ko defee ba noppi am na ñaar rakk ñu jullee ca gannaaw maqaamu ibrahim su fekkee ne foofa daa xat bu mënoo ko faa jullee ñaar rakk yi foo ko jullee bu baax waaye waru gar la su fekkee julli woo da nga am alamaan alamaan da lay war nu soolu musdalifa ak wàcc musdalifa wax naa ci sunu dellu dellu gi mooy wàññiku maanaam bu taxawee arafa dañ fay wàññikoo ñu wàcc musdalifa wàcc koo xam ne àll wàccoo fa faaw rek alamaan bi war la li gën na mooy nga fanaan fa waaye bu fekkee nar laa fanaan tam na nga wàcc ba sippi say bagaas boo ko deful rek alamaan bi war la mabiitu lay laatin ak fanaan ay gunan maanaam ñaari guddi yoo xam ne mënee su ko ñàkk fanaan mi nan buñ ci àggee daanu ko ràññeel yan la gu moom mën naa ñàkk waaye ñaar ya moom mënta ñàkk bu fekkee ne ñaari guddi yooyee laatin xam nga ñeen ñu nekk dañ leen sàkkal béréb boo xam ne buñu agsee fa la ñuy war a armale kon nag boo jéggee fa nga xam ne fa nga war a armale gannaaw ba nga armal te wëññi ko woo ba béréb booba naa daal di armal rek ba nga gannaaw kon xëtt nga waru alamaan dal lay war mu wax la nag kenn ku ne fan lay armale mu wax la nag ñenn ñu ne fan la ñuy armale fa dul xulayfati dul xulayfa li tayba ñeel na waa madina maanaam ba ñu wax dul xulayfa